salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu te di leen jaajëfal bu baax di am contentement jano ak yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi mooy di leen indil li gën a fës ci bopp xibaar yi ci noonu damay jël nuyoo bi kër gi di Pape Thialis Seye di ko ñaanal jàmm ju bëree bëri soo gisee fi ma nekk nag xam ne nekkuma Dakar maa ngi Fatick dëkku président ba son excellence Macky Sall di ko nuyu bu baax dëkku Matar Ba le ministre des sports maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax di ko di leen ñaanal jàmm ju bëri ci noonu nag dañuy fas yéene indil leen li gën a fës ci xibaaru làmb tey nag ñi ma doon feggool Assane Waalo ak Baye ka nekkuñu fi maa fi nekk ci noonu nag damay débuté rek ak Leewtoo point net la muy xam ne nag mooy jour Korité ak lendemain Korité Leewtoo production mu woon fee Loul Sessène daal di fay organiser gala de lutte simple Ndiaye Obali moo ko jël di Ibou moo jël raw gàddu ga ci noonu nag lundi 17 mai 2021 journal suñu lamb la ñuy doore ak xibaaru lamb lam ca xamle nag mooy kii di amaa Balde ak Modou Lo daje bañ naroon amal fee ca Nianing te mu jur antu dañ koy daal def la trois juillet incha allah fecca Gambie promoteur ba de ko Nicolaï nag lam ñi dikk tam wóor ko tam nar koo def mooy événement bu mag a mag la ko nar a daal di def fecca Gambie di ci woo axlu Sénégal lépp nee na presse bi ñëpp lay woo ñu def déplacement def dérangement dem fecca Gambie ngir suuxal dëkk bi ngir boole def relation bu nice entre Sénégal ak nga xam te ne mooy Gambie ba léegi ci Luc Nicolaï la ñuy desande ginnaaw ba wootee ñaaning ne kii di Ama Baldé dina ñëw def présentation moog Modou Lo gisuñu leen bañ leen gisuleen nag jaaxal na ñëpp ndax supporters yi amateurs yi ba ci presse bi ñu ngi doon xaar sëll bu ndaw ba ci pikin di Ama lu ñu nag mu ngi indi ay justification neen li war a Ama Baldé ñëwut dañ koo defoon rek accusé la woon pour ngeen li nga xamante ne nii mooy presse bi amateur lamb képp ku bëgg a lamb def déplacement daal di ñëw ngir taaral bis bi foofu fees indi leen ambiance waaye xamoon na ne Ama Baldé du ñëw ndax binduñu ko woon ci li nga xam ne mooy seen contrat ñoom ñaar kon absence boobu noonu lu ñu mën a nangu la ñun ñëpp même si fekkee ne xaar ko ba sonn ba léegi ci galam a ah, ñaane la ñuy desandi samedi ka jël raw mooy Serigne Ndiaye numéro 2 Ndiaye xale Fass ba Serigne Ndiaye xale Ndakaaru ba Serigne Ndiaye moom war a bëre ki nga xam te ne mooy ko Sokosine du yàgg dara Balla Gaye numéro de lañ la ñuy jëm le roi des arènes xaleb Géejawaay ba ki nga xamante ne nii mu ngi ba France lu muy def waajal préparation nga xam mooy combat am contre B52 de Mbour lam xam le nag ci journal bi daal di koy def mooy balaa moo laax di may dee laax jaay ba tax na mbër boobu di Balla Gaye numéro de le fils de Double Less de Sa Thiès lam def nag mooy daal ubbi seen YouTube tuddee ko BG2 TV yi nee na képp kuy supporter am képp ku safoo Balla Gaye numéro 2 na nga daw dem abonné ci BG TV lu xew ci moom rek wala lu mu def rek dinañ ko fa daal dugal ñëpp di am ay nouvelle ba léegi suñu làmb la ñuy desandi Modou Anta ginnaaw ba mu lajjee ci kanamu Diène Kaïré toog na ay diir kenn déggu ko toog na ay diir mu daal ne pat pataara toog ci rukkoom waxut ginnaaw ba mu génnee nag wax lam xamalee supporter na moom mu ngi jéggalu ñi xam ne jour boobu c'était un jour cent ndax làmb nee na booy dem da nga defet défaite yóbbaale ndam yóbbaale nul ndax loolu moo xew ci làmb ji waaye su daanee rek da koy sant yàlla waaye it su daanoo da koy sant yàlla moo tax mu ngi sant yàlla bu baax tey jéggalu ay supporters am bu baax a baax naa leen loolu dootu amati tukki na gisuñu ko mu raar gisuñu ko fenn mooy Siteu la phénomène de Lamsar ginnaaw bañ toogee ak diir gisuñu ko fenn ñu koy laaj ku ne naan Siteu fu mu nekk ndekete Siteu mu ngi ci dëkk Adama Baro ba di Gàmbi toog fa ak ay mboqam làqatu di waajal kombaam le premier août incha allah moo ki nga mooy Siteu Siteu moo ki nga mooy Papa Sow la war a bëreel le premier août incha allah kañuy descendre nag ba léegi mooy Serigne Ndiaye 2 ba mu jógee ñaaning dafa dem fee ci gi daal di fay imposer démb fii ci Fatick fi ñu nekk nii xam ngeen ki woote woon mooy jam production comme tuddee drapeau ba nag di mataar Ba ku ñëw Fatick xam ne Matar Ba mooy borom Fatick ba tax na mu jël drapeau bi daal di koy tuddee teg li nga xam te mooy mise 3 millions francs CFA. ka jël raw gàddu nag ca làmb ja mooy franc njaago or ba ca parcelle la xam ne nag mooy la mu def sax yoon waaye li ko war li ko jar moo ko jar ba tax na mu daal di ñëw def compétition bëri daal di daan jël raw gàddu go nee nag muy jox supporter am yi rendez-vous incha allah le 9 contre Tyson 2 ndax li muy waajal mu ngi waajal lu doy lu doy lu doy waar. ba léegi nag loolu moo nekkoon li gën a fës ci journalu làmb dañ leen di jaajëfal bu baax di am contentement ci yéen chaque jour nee naa leen dinañ indil li gën a fës ci bopp xibaar yi mooy suñu yitte damay gërëm kër gi ma nekk rek fii ñëw dal di kontaan ñoom bu baax vraiment accueil bi nice na bëgg nañ ci ñoom dafa mel ni comme si que ñoom ñooñu jur kii di Pape Diouf maa koy bëggee bu baax jatu kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax di la remercier di la ñaanal jàmm di nuyu seen doom ji di ko ñaanal gudd fan li ngeen bëgg ci moom yàlla defal leen ko trio bi la du mën a ñàkk Ndeye Mbacke Diop moom moo maa ne Mansour Fall Kébé dama koy bëggee bu baax sama monteur bi moom lu mu monté wul ne baaxul vraiment damay kontaan ci moom lool lool lool ndax metti na yoon bi yàgg na depuis 4 jours a ngi nii ñun ñeenti ñooy ànd di galéré yàlla na yàlla def li gën yàlla tabbi xol yi def Sénégal jàmm sotti ko suñu réew ak réew àdduna bi yëpp di leen ñaanal jàmm yéen internet yi ndax yéen a tax ñu fiy nekk suñuy pour yéen a tax suñuy def pour yéen tax li tax ñuy rayante ci àll bi yéen yéen tax di leen bu baax a baax noonu lay def rek daal tàggatoo ak yéen remercier équipe Leewtoo TV yëpp yëpp cat ba cat Leewtoo production ñëpp Bamba moo papa maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax noonu la ñuy def rek daal tàggatoo ak yéen tàggatoo bu amul àpp te du jeex den jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV